Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3 énergie ñoo di may seen revue de presse jàngeen jëf njëgu gerte gi moom la yéenekaay yu bëri xëyee tey réew mi quotidien mi ci àddu nekkoon bi moo fegoo campagne njaayum gerte gu njëkk ci nguuru Bassirou Diomaye Faye dogal yu njëkk yi nga xamante ne njiital jëwriñ yi Ousmane Sonko jël na ko niki démb fës na ci yéenekaay bi bokk na ci nag njëgu kilo gi nga xamante ne jàpp nañ ko ci juróom benn fukk ak dërëm muy 305 francs yeneen matukaay yi nga xamante ne nguur gi jël na ko fësal ko démb ci ab ndaje bokk na ci gën a yokk surveillance bi ci frontières yi ngir lu ñu doon nemmeeku ñu daal di koy dakkal maanaam jiw ji nga xamante ne yenn saay dañu koy rawale ca biti réew rax ci dolli état noppi na tembe ngir génne lu toll ci fanweer ak juróom-ñaari milliards ci suñu koppar ngir fay bor bi nga xamante ne moom la ñu yoreel opérateurs yi ak semencier yi mu nekk ay mesures yu am solo bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien ngir kon fexe ba campagne njaayum gerte gi ren ji gën a ñoŋ ci yéenekaay groupe Sud Communication bi kilo bi lu toll ci juróom benn fukk ak dërëm njëg googee nag Vox Populi di leeral ni juróomi dërëm kon la ñu teg ci kilogramme bi boo ko méngale ak prix bi nga xamante ne moom la ñu doon jaayee ni ki daaw ci ndajeg démb bi nga xamante ne dañ koo jagleeloon campagne yu njaayum gerte gi suñu naataango yi di ñu yëgal ni lu toll ci ñaar fukk ak ñetti dogal moom la njiital jëwriñ yi daal di jël ngir rek campagne gi mën a jaar ci yoon lu ko dalee juróomi fan ci weeru décembre bi ñu dëgmal ren ji nag nguur gi fas yéene ci samp ab dispositif am solo ngir mën di dajale gerte opérateur yi ak particulier yi laata ñuy jébbal autorisation yi mën a tax ñu yóbbu ko ca biti réew gertew ren ji laata muy dem ca biti réew faaw Sénégal doyal ba noppi ndax la témoin mu ngi xamal ni état ren ji dafa fas yéene bloqué lu toll ci juróomi téeméeri junniy tonne ngir opérateur ak huilier yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci biir réew mi li moo tax Le Soleil gis ni état ren ji daal campagne njaayum gerte gi ci boppam la bëgg mu niin mbatt ci biir yéene kaay an bi nee ñu lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñeent ni ay milliards moom la état fay ni bor koor ISRA nag di sàkk ñu daal di amal ab fonds semencier yeneen càkkuteef yu tukkee ci ndaje bi bokk na ci ñu samp ay unité de stockage ngir denrée alimentaire yi secteur privé bi tamit ren ji bëgg na ci dugal loxoom bu baax a baax waaye gannaaw dogali yépp Walf Quotidien ne dëgg la guléet njëgu gerte gi yegg ci 305 francs waaye ba tey nekkul li nga xamante ne moom la béykat yi yaakaaroon ñooy liggéey ci wërgu-yaram ak université yi li ñu yaakaaroon ba léegi amul moo tax enquête du ñu xamal ni nguur gi jamono ji ña duppee front social ndax grève yi ñu tàmbale ci secteur santé bi ak université yi rax ci dolli ñu liggéey ci collectivité territoriales yi ba léegi ñu seen xeex xeex bi bar ci secteur yu bëri moo tax le quotidien gis ni état de grâce bi ñu joxoon ba Bassirou Diomaye Faye ak Sonko moom jeex na jamono ji ndax syndicat yu yëngu ci wàllu njàng mi ak ci wàllu wërgu-yaram ñooy yëglu ci décembre bi ñu dëgmal teg ci campus université Assane Seck bu Sikicoor nga xamante ne léegi daara googe dañu ko def toolu ab rapport day fësal nii yu bëri ci ñoom ci Sénégal diggante 2020 ak 2023 teguñu ci yoon les échos di fësal nii lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom ni ay établissement yi nga xamante ne càmbar nañ leen juróom fukk ak juróom-ñett rek ci ñoom ñoom ñoo yeyoo joxe ay diplôme état bu Sénégal li mu tàmbalee càmbar doxalin wi ak yorin wi ci kopparu Sénégal loole mu mel ni réew mi quotidien mag ñi yëgal ni états uni ci seen wàllu bopp ànd nañ ci bu baax a baax mu mel ni ñu ngi ciy kañ nguur gu bees gi ci Sénégal lu African Energy ci l'observateur mooy enquête bi ci boppam yegg na ci pàcc bu am solo ndax Samuel Sarr boo moyul instruction ñaareelu cabinet la jëm yéenekaay groupe Futur Média bi di njort ni ab délégation judiciaire boo moytul daañu ko samp ngir teewlu Arona Dia ak kii di Papa Demba Bitèye L'As Quotidien mi xëy ci dossier boobee tamit di xam ne ni kon Samuel Sarr ci instruction la jëm directeur général bu West African Energy moom am na démb ab retour de parquet mu mel ni dossier bi ci boppam am na lees waxul yi nga xamante ne boo moytul njeexit Italie dina métti lool laas di xam ne ni xeex bi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku diggante associé yi mën na am li mu jur ci secteur énergie ci Sénégal dossier Jérôme Bandiaki am na li mu jur bees libération di yëgle ni yoon mu ngay wéy di teg loxo ñi ñu njot ni kon ay nervi lañu enquête bi nag li mujj li mu fësal mooy mbër bi di bàcc ba ñu gën ko xam ci mbës mujj nañ ko jébbal doyen des juges laata ñu koy tëj Sakorika ñu gën koo xam ci turu Papis bokk ci ñi nga xamante ne Jérôme Bandiaki lim na leen ni kon moo leen jaay ay ngànnaay nekk rak ci jëwriñ jëwoon du Ka division des investigations criminelles mujj na ko teg loxo ca kër gi mu dëkkoon ca West Foire ba fa takk der yi demee nag fekk nañ fa ay gilet pare ay bal waaye tamit lu toll ci ñetti nganaay yi nga xamante ne teg nañ ko loxo seen g teg ci loxoom koppar gi nga xamante ne moom la ñu roppi ci Modou Lo ak Siteu Rewmi Sport di dikkaat ci daan yi nga xamante ne kuréel gi ngànk làmb ci Sénégal def na ko ñaari mbër yi gannaaw seen combat dimanche bi suñu naataango yi di xam ne ni Siteu ñàkk na lu toll ci 2 millions 730 mille